auzu billahi samiil alimi min al insi wal jinni wa sheytaan alayni rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi almursalin sayyidi alawalin wal axirin wal xabibu rabbil alamin wa bi barakati zàll doonti sayidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabi'al huda bi hadiyatil ilaa yawmi tanaati mbokk yi nu bokkal yàlla ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci gën gaa sell nuyoo ci gën gaa yaatuy nuyoo ci gën ga sakkani nuyo nuyoo woowu mooy nuyoo waa aljana te moom la yàlla jox yonentu yàlla Muhammad alayhi salaam ngir mu indil ko xeetam te muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ñu sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu wa kennal ko ci nguuram gu tedd gi ñaan ko mu fajal ñu mboole mboolem xaajoy biir ak biti tabarakallahu rabbal alamin mu mel ni itam sunu cofeel ci yonent bi yàlla muhammad aleyhi salaam yàll na yàlla saxal ko ci ñun yàlla na lu wér te it yàlla na yàlla nangu sunu cofeel ci moom euh, di wax la waxkat ba waxoon ni wa bi xakki jaahika inna nii laka maxramun wallahu yaalamu annani ahwaaka te mooy sunu cofeel ci yonent yàlla Muhammad yàlla na ko yàlla xam waaw mu ne géej naa ko ci sa barke daraja ni sama cofeel ci yow lu ñu xiirtal la jëme ko ci yow yonent bi waaw mu ne sax yàlla xam na sama cofeel ci yonent bi salaam am ko ne sax yàlla seedin walaw yashhadu anna ni ahwaaka waaw yàlla seede na sama cofeel ci yow yow yonent bi alayhi salaam liñ ci wax mooy sunu cofeel ci yonent bi yàlla na yàlla nangu ko yàlla na yàlla xam ko waaye yàlla na yàlla seddal ñu ko ci barke yonent yàlla Muhammad seen soppe seen xarit baax Dabakh Cissokho fii ci Tektal TV seen télévision bu mag bile di gërëm ak di ñaanal euh, kilifa gi Cheikh Taalif ñaanal ko yàlla defal ko jàmm ak tawfiq ak taysir ak tansir ci barke Taaha alayhi salaatu wasalaam waaye di jaajëfa waa diaspora bi nga xam ni ñoo ngi topp di seetaan seen télévision boobu di nuyu Abdoul Aziz Mala ca France nga xam ne ñoo bokk Cheikh Ibrahim Ndiaye sunu soppi boobu sunu xarit boobu ñu ngi koy ziara sunu wasila boobu cheikh ibrahim khalil mu yaa faama soose njaay radiyallahu taala yàlla na yàlla defal ko jàmm mu mel ni ñu indil leen tey benn waxtaan woo xam ni tawasul la ah, ndax dañoo toll ci jamono joo xam ni mbokk yi mbas mi menn xus jafe-jafe yi bari fi lool xat-xat yi bari fi lool musiba yi bari fi lool balaa bi bari fi lool mbas mii ñu lajal euh, lajal nu wit ne bañ ne du dellu fa mu jóge woon kon mbokk yi li mën a dimbali jaam bi ci boroomam mooy ñu def tawassul jëme ko ci subhanahu waaye jaaree ko ci yonent yaan muhammad alayhi salaam yàlla nangu nu sunu tuub ak sunu njëggal moo tax ñu daw fële ca Tiwaawan jëli benn xasida bu maam Cheikh Sidil Hadji Malick indi leen ko fii ci seen émission bi di dégg diine nga ànd ceeg seen soppe Oustaz Mouhamed soxo wala Mouhamed Dabakh Cissokho liñ gën a xam muy xasida boo xam ni xasida bu doy waar la waaye tawasul la ba yegg euh, liñ ci sàkku mooy ñaan ñaanal sunu bopp waaye ñaanal réew mi waaye jaare ko ci tawasulu mag ñi nga xam ni tabarakallahu ki ko bind borom cër la bu nu xam ci réew mi de passage nuyu sëñ Babacar Sy Mansour xalifatul aam li tarixati tijaniya moom i kii rakkam ki njabootam ak kullu kuy soppee kër sëñ Alxaaji Malick noonu lañu ñu nuyoo sëñ Muntaxa al Bachir ak mboolem maam Cheikh Ahmad Bamba ak njabootam nuyu njabootu maam na Limaamu euh, xalifa bi maam Abdoulahi Thiaw Laay ñu koy ziyaara waaye nuyu waa Medina Baye sunu xalifa bu tedd ba ñu ngi koy ziyaara euh, waa Canaba waa Njaasaan waaye mbooleem këru diina yi ku ci nekk fekk nañ la fi nga toog ne la jàpp loxo ne la salaamaaleykum waaye noonee la ñuy nuyoo kilifay aada yi tamit ziyaare leen di ñaan coow lii fi xew ci jamono ji yàlla na ko fi yàlla yàlla na ko yàlla leeral ba la cay dëgg féete boor la cay nee nit féete boor moo tax mu ne yaa kaashifa daa i wal aswa wa adraari mu fiida ab quri anwaarin wa asraari waaw mu ne yaa kaashifa daa i wal aswaa i wa adraar yi boo ko dee way wal aswaa ngay yam ngir bañ damm way wi waaye boo koy firi nag wal aswaa i wa adraar yi waaw mu ne yaa kaashifa daa yow yi yow yàlla mi nga xam ni yaay wuññi tawat yi yaa koy teggi wal aswaa i ak naqar yi wa adraar yi ak lor yi yow yàlla yow mi koy teggi yàlla yàlla ñu yàlla na ñu ko teggil yow yàlla yow miy tegee naqar yàlla na nga ko teggi yow yàlla yow miy tegee loreef na ñu teggil loraange waaw yaa kaashifat yow yàlla yow mi nga xam ni lu dal nit ki yow a yàlla na nga ko teggi waaw kenn tegul kenn lenn yàllaay tegee mboolem nattu yi waaw kon nag yàlla nañu yàlla teggil naqar yi ak lor yi ak tiis yi waaw moom mi nga xam mi mu fii na ab xuri anwaarin moom muy bëbbal géeju leer yi moom yàlla wa ak secret yi waaw yàlla mi nga xam ni mooy bëbbal géeju leer yi ak sirru yi kon nag yàlla ñu ngi lay ñaan yow mi ci sa géeju leer yi ak sa géeju sirru yu am solo yi yow yàlla yàlla na ñu ci sangee ba teggil ñu loraange yi ak naqari ak ak ak tawat yi yow subhanahu wa moom yàlla bi nga xam ni bil ixtiyaari kama qad shaa jallat ila aqibatil kaana wal axyaari wa ahraari yow mi nga xam ni yow yàlla ci say tànneef waaw ci say tànneef comme ni mu la soobee ngay tànnee ku la soob tànneef ya ka ca gën mooy sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam tànneef ya ka ca gën mooy qurayshin tànneef yee ya ca gën mooy géeru ba Hachim waaw ndax yàlla wax yonent bi yaa gën ci mboolem mbooleem li ma bind waaye noonu la sa xeet gënee ci mboolem xeeti yi te yonent yàlla wax na ni ni ma gënee ci mboolem xeet yi noonu la bu askan yépp daje nee na sama askan moo gën ci mboolem askan yi huwa nabiyun arabiyun qurayshiyun min lubbi lubbi xayri xayraati alayhi salaatu wasalaam waaw moo taxoon waa ji wax wax ju ñaaw jooju askale ni wayjur yonent bi ay wayjur ma ko gën njuumte la waaye comme génn na ba jéggalu jéggal nañ ko lillaahi xaalisan te xam ni yonent si al Muhammad salaam loo ko waaye mësoon a wax jéggal na la ndax mësta fayantu mësta gàntu it ku tooñ jëmee ko ci moom jéggalu mu jéggal la waaw waaye mbokk yi buñ di sàllalu yonent bi askanam ndax ku dul ñoom ñoo la gën waaw moo tax ci say tànneef yow yàlla ni mu la soobee ngay tànnee ku la neex moo tax sëñ Babacar Si radiyallahu anhu waxoon ni wa xayratullahi moom yonent bi sirru zati safwatuhu sirrul wujudi wa jawdil jodi naa maaw waaw moom la moom yonent bi mooy tànneef bu mag bu rëy bi moo tax mu ne màgg na waaw màgg na moom subhanahu wa axibati kaani axyaaran wa axraari moom yàlla mi nga xam ni mooy soppey jaam ñi moo tax yàlla nag ku mën gan la waaye yàlla it ku mën xarit la yàlla ku mu xaritoo boo mën muñ rek xaritoo gu du yegg waaw moo tax tànneef yeeg gor yeeg yàlla ku fiy gor ak yàlla moo la tànn ci biir tànneef ya teg la ci kanamu jaam ñi waaw moo tax yàlla moomu ci màggam ak ci tolluwaayam nit mën a koo misaal ba xam ko waaye nooñu lay tànnee ay tànneef waaw moo tax ku tànn rek góor nga moo tax waaw góor taxul nekk góor waaye tax na góor am jom te sëñ Babacar Si radiyallahu anhu daan na wax ni góor piir mooy ku góoru ci dara waaw moo tax mu ni yaa akaramal kurama yaa arxamal ruxama yaa altafal lutafa yaa barda aqraar waaw mi nga xam ni kuy tedd rek yaa ko gën a tedd yow yàlla yaa akaramal kurama waaw kuy tedd yaa ko yërëmande waaw yow bu mag bi yaa altafa lutafa yow yàlla yaay aji ñeewante bu mag bu rëy bi yaa barda axaraari yow yàlla yow mi nga xam ni ah, xam nga kuy tedd moo la gën a tedd loolu mënee mëneesul weddi waaye moo ëpp moo ëpp ñëpp noonu hmm? kuy am yërmande yàlla la ko ëpple ndax ci moom ci géeju yërmandeem ngay tànkee waaw waaye kuy am ñeewante yàllaa la ko ëpple moom subhanahu wa taala waaw yow mi nga xam mi yaay seral lu tàng mën nga ko mën nga ko mën nga ko firee noonu yaa barda raar yi baax na yaa burda raar yi baax na boo ne yaa burda raar mooy yow yàlla yaay sàngaati sutura yaay yaay sutura bi yow yàlla waaw ku am sutura rek yàlla la ko sàng waaw waaye ba tey baax na boo ne yaa barda raar yi mën ngaa firee ni yow yàlla lu fi tàng rek yaa ko seral waaw ndax burda mooy manto waaw moo tax ku fi am sutura yàlla waaw ku fi ku fi am suturit yàlla waaw moo tax bi waa ji ñëwee di ñaanlu mu ne ko loo bëgg mu ne ko alal mu ne ko loo mu ne loo koy doyee ñaanal yàlla sutura ndax ku yàlla sàng sutura nga am ko kon yàlla ñu yàlla sànk sutura fi dunya wal axir waaw mu ne man laa yuqayyibu abdan jaa yasaluhu yaa maane an an su ali sahari axraari ba tey yàllaa ngi kañ boroomam waaw mu ne yow yàlla man laa yuqayyibu abdan jaa yasaluhu yaa maani an an su ali sahri axraari sihri axraari waaw yow yàlla mi nga xam mi man laa yu qayibu waaw abdan yow yàlla doo gàntu ab jaam boo xam mi euh, ñëw na ci yow yàlla doo ko gàntu di la ñaan jaam bu ñëw ci yow di la ñaan yàlla du ko gantu ëpp na ci jaam mu ñëw ci boromam di ko ñaan yàlla di ko gantu man laa yuqayyibu abdan jaa yasaluhu jaam boo xam ni dikk na ci boroomam tàllal koy loxoom di ko ñaan yàlla du ko gàntu ndax moo ni ñaan leen ma ma may leen tooñ leen ma ma baal leen waaw kon nag yàlla du gàntu jaam boo xam ni ruq nay bëti oomam ci suuf tàllali loxoom toroxlu jëm ci boroomam mu jeg ñaan ko foofu yàlla dana ko may waaw moo tax jaam ñi yàlla xañul kenn wërsëg moo tax jaam ñi jàppal ni lu waay ñaan yàlla may na la ko xanaa kay dafa am nu mu la ko mayee wala boog dafa ah, dafay xaar la gën ci yow mu jox la ko waaw mu ne yaa maani an ansu ali sihëri ahraari waaw mu ne yow yàlla jaam boo xam mi aji ñaaw téef la jaam boo xam mi aji xañkat la kon nag yaay xañ jaam boo xam mi cig mbon lay defee li muy def moo tax gaa yi mbonte gi gi xew ci réew mi musiba gi xew ci réew gi internet bi jëf ju ñaaw ju xale yi jigéen ñi di def internet bi jëf ju ñaaw ju ñu xewal di def mbokk yi jàppal ni talax tasax li ci gën a yéeme fii koo fi gis muy def jëf ju ñaaw boo ko laajee boo dee foo bëgg jëm mu ñu la aljana est-ce liggéey na ko hmm? moo tax yàlla kum topp bor nga dem sa nga dem jahannama moo tax yàlla buñ yàlla toppee benn bor ndax kum toppee bor nga dem aljana nga nga nga dem jahannama waaw mu ne yallaahu ya rabbana ghaffara zallatina ya yow yàlla yow mi nga xam ni yaay jéggalaa bu mag bi jéggal ñu suñuy tarxiis yallaahu yàlla ya rabbana yow sunu boroom xafaara jéggal nu zallaate naa suñuy tarxiis aka bari aka bari aka ñoo mën a aka ñoo mën a tarxiis moo tax fa anta xalimun yaa saburu li man jafa waaw yàllaay buur bu lawet buy mën a jéggal eh, aji defkatu baakaar gi aji defkatu ñaawteef bi waaw ku lewet la moom yàlla fa anta xalimun yaa saburu li man jafa waaye yàlla ku wa ku mën a muñ la waaye béccangal yi la waaw moo tax mu ne yow yàlla jéggal nu suñuy tarxiis yaa haadiyan sa dalalin xaayiran saari yow daal yàlla yaay aje gindi sunu yaay gindi ko réer ba ni mar yow yàlla yaa koy yaa mën a gindi ki gëlëm kon nag yàlla yàlla nag ñu jéggal yàlla daal yaay gindi ba mag bi ki réer yow yàlla yow rek yaa ko mën a yow rek gindi ki rañaan jëm ci réer ki rañaan jëm ci ngëlëm ki rañaan jëm ci mbonte ki rañaan jëm ci ñawteef yow yàlla yow rek yaa ko mën a indiwaat ko waaye nag day fekk jàmm boobu tegu nag ci yoonu yàlla wu ne mokk wu ne wuti boroomam waaw mbokk yi te jamaaxi min gawaayatiha kamaa yu raddu jamaaxi laylu bil lujumi sunu bakkañ dafa màmm daw jëng nañu ba mënatuñ la ko defal lenn suñu bakkan yi daal mooy sunu buur sunu bakkan yi daal mooy sunu mooy sunu mbégte sunu daal mooy sunu bànneex fu ñu jëmale rek foofu lañ jëm moo tax Mouhamadul Bachir wax ni ana ci yéen moo mën a dàkki bakk moo mën a dàkki bakkanam looj ko yar ko comme ni fas bi màmbee boromam dàkk ci ko looj ko bu delloo sil ko ana kan lool ci bakkanam def ko ci réer gi ñu toll mbokk yi ci mbonte giñ toll mbokk yi ñaw ñaawteef gi mënoo xëy suba ba ngoon déggoog ñaawteef réew mi ñu toll réew mi nga xam ni sa maam Seydi El Hadji Malick mu ngi fi tëdd réew mi nga xam ni sa maam Cheikh Ahmad Bamba mi ngi fi tëdd réew mi ngi fi tëdd mi nga xam ni maam Seydina Limaamu mi ngi fi tëdd réew mi nga xam ni maam Abdoulaye Niass mi ngi fi tëdd réew nga xam ni mag ñu baax ñoo ñi ngi fi tëdd te saa boo xëyee dégg fi mbonte saa boo xëyee dégg fi ñawteef saa boo xëyee dégg fi musiba te ñooñu boo waxee ñu ne ñoom lañu yaakaar ci kanamu yàlla ëllëg waa kon est-ce que ñoom bu ñu ñawaatoon tey ci jamono ah danañ am ñu bari ñu ñu mere kon nag mag ñooñu bu ñu ñawaatoon ñun ñëpp dina defaraat suñu toogaay ndax yoon wi yoon ngir ñu jaar fa yàq ci nañ lépp waaw li gën a yées mooy dugg internet yu di saaf seeni awra te bu xas dootul ba faw mbokk yi waaw mbokk yi te nag li ci gën a yéeme mooy jëf rek lañ mën a nettali ku ku denc euh, kiloom ci biir bataam te génne libaru jàmm ba tax mu ne inni usibtu bi daa in laa tabiba lahu tawat la inni nag man kat usibtu joteef na ma dal na ma bi daa in tawat goo xam ni laa tabib may am docteur loxo di la ñeel ku dul yow yàlla waaw man daal aw ma bu dul yàlla ci tawat gi ma dal te muy lan mbonte mooy lan mooy mbote iñaanante soxorante bañante xas gor yi ay mag yuy jàppante di xeex mel ni ay xale yu ndaw moo fi xew léegi mag yi jàppante mag yi xuloowante mag yi xastante mag yi di kojante looloo fi xew sunu njiit ci nga xam ni ñoom ñoo war a jiite réew mi ñoom ñooy njëkk di xeex ci seen biir ba tax waxam ja maam Cheikh Alhaaja Abdou la mu waxoon ca ca ca assemblée nationale mu rek moo fi nekk waaw mu ne assemblée bi def noonu nañu waxtaan mu ne jamono jooju Abdoul Aziz Ndaw moo nekkoon ca moo nekkoon ca assemblée nationale mu ne ba kenn indil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg moo lii tey mu nekkoon kon kenn yóbbul Moustapha Niass Ndaw lu dul dëgg mu ne bu ñu leen présenté li ngeen wara a voté na ngeen ko seet. bu ngeen présenté li ngeen war a voté na ngeen ko seet mu ne loolu lan lay jural njiitum réew mi ak lum lay jural amaamallaahi ëllëg nga daal di sàdd ba allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah allahuma salli ala sayyidina muhammad baat bay jolli ndax lan ndax la mu yëg ci digganteem ak boroomam fii lay julli ñii ne ba ci Tiwaawan la ñu ne zoy bi ci dakaar la julli ba sëlmal gestu ne ab ne sëriñ Babacar Sy Abdou nan laa tudd mu ne ko Abdoul Aziz mu ne ko ban tur moo ma dab mu ne ko xalif général yi Tidiane mu ne ko yógoone ginaar gu faatu Tiwaawan man la ko yàlla di laaj ginaar gu fi faatu ëllëg man la ko yàlla di laaj ndax lan boobu yilif na ruuxam yilif xolam yilif bakkanam waaye ñun nag jamono ji ñu toll suñu bakkan yi ñu yilif lu ñu neex rek mooy am jàpp nit ki ëpp ko doole tëj ko jàpp nit ki ëpp ko doole tegu ci kawam jàpp nit ki ëpp ko doole wan ko ko loolu moo fi am waaw tawat la tawat la boo xam ni daf ñuy rongé yóbbu ñu ba ëllëg yawmal qiyaama mu gungu ñu yóbbu ñu jahannama yenn ci yàlla musal moo tax ma ne tawat naa tawat goo xam ni yaakaar ma ku dul yow yàlla nga jéggal ma docteur bu may bu may faj ci sama tawat kii yaakaar ma ko ci kenn ku jul subhanahu wa taala waaw mu ne siwalasi kulla yawmin shahnuhu jaari waaw mu ne man daal sama tawat gii yaakaar ma ci ku yow yàlla la mbir ya bari bari bari la tawat ya mën a toll yaakaar ma ci ku yow yàlla subhanahu wa taala ci yow daal lay mën a daw mën a làkku lu tawat ya mën a bari ak nu ñawteef yi mën a tolloo tawat googu tuddee ko ñawteef tawat googu tuddee ko iñaan tawat googu tuddee ko coxor tuddee ko mbonte waaye amul ci kenn ci kuñ mën a yaakaar ku dul yow yàlla fuñ mën a wér suñ ndodd li yaakaaral yow yàlla waaw mu ne moo tax ba tey rek ma ngay wax mu ne waddaawu yaa rabbi addanaanii wa addana fa nii ajjil ixaasatana yaa xaaliqul baari waaw mu ne ma daal sama tawat gii sama jàngoro gii ma amee te mooy lan ñàkk bañ a wax dëgg te lan mbonte te mooy lan coxorote te lan xas gor yi te muy lan lekk alalu jàmbur bi xayri tibi nafsin ci tey bakkan mu ne yooyu yëpp dem na ba songongloo na ma dem na ba jëng na ma waaw tawat googu dem na ba songongloo na ma dem na sax ba ëpp ma toor ëpp ma tool dem na ba jaaxal ma waaw tawat yi ma amee ci sama xol moo tax benn mag wax na ma ko keroog yam oustaz ma ne ko la béyka mu ne ma coronavirus moo lëmba réew mi waaye am na virus yi gën a bon ci sunu xol yi te ëllëg moo ñu yóbbu safara te mooy lan mooy iñaan virus saxoor virus xastante yi neen yooyu ay virus yi nekk sunu xol nga xam ne daf ñuy gunge du ñu defloo ñawteef di ñu gunge di ñu defloo ñawteef ba ëllëg yowmal ma yàlla àttanu yóbbu ñu safara yàlla bu ñu àttewul ci yërëmandeem àttewuñu ci mbaaxam ah du nu baax le da mbokk yi te yàlla nag ku baax la jéggalu ko rek mu jéggal la waaw moo tax ma ne sama sama tawat gii ma amee tamit xeeti ñawteef yi ma amee daf ma songoog loo dem na ba jaaxal ma kon nag ajjil gaawee ma irasatena te te na ngay xetti li ma nag yow yàlla gaawee ma te xetti la ma yaa xaalixul baari hmm? yow mi nga xam mi yaa yettkat bu mag bi waaw xoolal euh, tabarakallahu yaa xaalixul baari noo koy déggee mooy yow mi jël sa tissu dem ca tailleur ba mu ñaawal la ko ba nga ko jox tissu ba ak ba koy dagg di ñëw nga xam ne tissu nga ko joxoon waaye ba nga ko jëlee mbubb la nekk ci yow mooy xaalixul baari waaw kon yàlla mu ma kon bu mag bi waaw kon nag gaawee ma te nga xettil ma yàlla ci samay ñaw yi ma ne wallahi la azim gis nga bu ñu sukkee sunu bëti oom yii jox lépp yàlla tawasul ci moom yii ñi joy yépp day jeex li ñu sonal lépp mag ñi wax nañ ko ba tey waaw mu ne in néeween kuntu aswaa bi mu da nasatan wax jee ngi noonu mu ne man daal fekkee ne donte ni man sama mbubb yi ma sol tilim na tilim ba ñuul waaw donte mbubb gii ma sol tilim na ba ñuul in nii wa in kuntu aswaa bii waaw donte daal samay baakaar samay ñaawteef jéng na ma sama tamaa wajal baxaru baxaru zan biyaa siqati waaye nag wa inna ne rabbi xiftul xarqa yallaahu waa wax jaa ngi noonu donte ni ñaaw teef dem na ba jéng ma dem na ba toll ni man du si géej hmm, sóob naa ko bi maa i afwika arjo xasla aqdaari axzaari moo ne donte ni toll na ma noolu mbubb googu di mbubb baakaar sóob naa ko ci si géejug njëggal gi waaw bi maa i afwika sëp naa sa mbubb googu nga xam ni ñaaw teef la ba fees tilim na ba ñuul ci baakaar waxul mbubb gi de sunu jëmm yi lay wax donc sunu jëmm yi toll na ci baakaar jaam dana dana toll ci ñawteef ba day dem ba day dëngook yàlla lu mu ñaan yàlla du ko faale maanaam kooku day dem ba day def la ko neex foog ni moo ca fekk ne yàlla moo ko génnee ci yoonam woowa ma nga ca yoonu kéeféer nit dana toll ci baakaar ba day foog ni moom daal li fi nekk mooma fekk na yàlla génn ci moom ba kook la ko neex yàlla yàlla bu mu ñu dal mbokk yi loolu yàlla bu mu ñu waaw moo tax mu ne yàlla donte ni sax ñaawte fii ci man dem na ba jëng ma dem na ba tilim ba ñuul waaye yaaw yow yàlla yow rek lañu mën a yaakaar hmm? kon nag soob naa ko sa géejug yërmande gi sóob naa ko ci sa njëggal gi waaw su yow yow yàlla du baax su dul yow boo ñu àttewul ci sa yërmande yow yàlla boo ñu dul yërëm yàlla boo ñu dul jéggal ah, du baax de kon nag sóob nanu sunu jëmm yu tilim yi ci ñaawteef ci sa géejug yërmande gi ci sa géejug njëggal gi waaw sëpp nañ ko ca waaw léegi nag ma ngay waxtaan ak yàlla moom moom borom xasida bi di sijal xaaji Malik waaw naan wa rahmatullahi kull al xalqi qad wasiat min fajirin wa mutehin zahidin baari waaw mu ne yow yàlla wa rahmatullahi yow yaay borom yërmande gi yow yaay mindaa foonu yaay jéggalaakoon bu mag bi yaa yërëmaa kon bu mag bi kulal xalqi ci mbindeef yépp xatu wasiyaan sa njëggal yaatu na yow yàlla sa njëggal yaatu na ci mboolem luy mbindeef moo tax fii ci àddina rahman la tudd rahman la tudd mooy jëggal mboolem seen fii ci àddina mooy jëggal mboolem seen waaye nag bu demee ba yowmal qiyaama rahim la fay tudd mooy jëggal ku ko neex waaye fii mooy yërëm ku ko neex ñépp la yërëm moom fii ci àddina ñépp la yërëm waaye buñ yegg ba yomal xiyaama ña àndoon ak yonent bi àndoon ak àndoon ak ñoom mi metti ñuy muñ mooy ñan mooy ña nga xam ni ñoo woon ci diine daan jéggale ñu woon ci diine daan waare ñu woon ci diine daan diggale tey daan diggale tey tere lañ daan diggal ña nga ca ña nga daan tere bàyyi nañ ko lu am solo la nit ki lam lay diggal na ko cay fekk lam lay tere bul ko ca fekk waaye nag Mouhamadul Bachir nee na amartukal xayri lakin maxtamartu bihi wa ma saxamtu fa ma xawli mi man daal digg naa leen yiw njekk def leen la la ca des seen yoon neew ci ci man waaw moo tax yàlla daal mooy yërëmaakoon bu mag bi te yërëmaandeem làmboo na luy mbindeef min faa jirit ci aj kàccoor umu tayin ak ak topp yàlla zahidin ak dëddu baayir ak baax min fajirin wa mutihin zahidin bari yërmande yàlla làmb na aji kàccoor gi aji topp gi ka dëddu gi ak ka baax yàlla ñëpp la yërëm subhanahu wa waaw subhanahu wa taala ñëpp la yërëm mbokk yi dafa jot dafa jot ñun ñëpp nag ñun ñëpp ñu gàddu sunuy ruux liggéeyaat ko waaw ndax ruux li koy alimenté du ceeb ak diw du lekk gu neex la koy alimenté mooy tudd yàlla la koy alimenté mooy bàkk yàlla la koy alimenté mooy kennal yàlla la koy alimenté mooy yëkk sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam xam na nag mooy xayri xalqillaahi kullihim ba taxaweekat ba wax ni inni la arjo majal rahmaani lil jaani zikrul ilaahi xayatal xal ba tudd yàlla daal bay laabal xol ba mu seet wecc zikrul ilahi xayatal xalba iqwaan yi kon nag maa leen di digal ñuy tudd yàlla ci tuddin goo xam ne nag ñu koy tuddee ci suñu xol bañ ko rek waaw ndax yàlla law kaana baabuka laa yaatihi zoo isamin fama du'ita gafuran kulla awzaari waaw mu ne yow yàlla daal law kaana baabuka laa yaatihi zoo isamin bugil woon ak sa buntu wii yow yàlla sa bunt wu mag wii sa bunt wu yaatu wii nga xam ni xajeef na mbooleem mbindeef yeeg jinneek maleek sa bunt wi xajeef na ko waaw waaye bu dul woon ci sa tur yow yàlla ndax jàppal ni tur yëpp bu ci nekk am na lu muy wund di ko liggéey boo demee ci salaam am na lu muy liggéey boo demee ci matin am na lu muy liggéey boo demee ci sabuur am na lu muy liggéey rahman am na lu muy liggéey rahim noonu latif noonu ah, bu ci nekk rek shaafi noonu mu kabir noonu bu ci nekk am na lu muy liggéey noonu kon xafaar am na lu muy liggéey waaw moo tax mu ne yow yàlla ci sa bunt wii nga xam ne mooy buntu jaarukaayu jaam ñi bu amul woon wilee tur kon du jaar ñu lay woowee jégalaakoon bu mag bi wax ji rëy na de waaw mu ne kon yow yàlla bu jul woon nag yaa xafaar bi ñu lay woowee te muy li raxas baakaar ci jaam ba mu set wecc moo tax ma wax leen ni lay tax jaam bi am njëggalal yàlla la ca gën a gaaw mooy yaa xafaaru ñaata nga koy def mille deux cent quatre-vingt-dix yaa xafaaru bu bu baakaar yi bare ba ne xus lay tax yàlla mën la ko jéggal mooy yaa xafaaru lim ba mooy mille deux cent quatre-vingt-dix njëkkeel quatre-vingt-dix teg ci deux cent teg ci mille incha allahu taala nu bàkkaar ga mën a toll ak doo ko mën a defee jéggal ko waaye charte tuub ya mooy rëccul baakar bi nga def li njëkk nga koy tuub boo ko rëccoo ba noppi ba jéggalu ko yàlla mën na ko jéggal waaw ndax yàlla turam woowu de xafaaru nekkul lu dul di far bàkkaar moo tax sa maam Maodo nee la bu ñu woon ak Gafaar ndax bokk ci say tur liggéeyam mooy far bàkkaar kon est-ce que jar ñu la koy woowee waaw waaye nag bi mu waxee wax ji wax ji diis ci moom mu am lu ma ko lay taayee nag la la ko lay taaye mooy dafa ni xatabtu rabbi xitaaban laa yeliqu bina faxfir li abdin min al asaami xayyaar yi waaw moo tax mu ne xatabtu wax naa wax naak sama boroom xitaaban wax joo xam ni déet muy yell jëm ci man laa yaliqu bi naan déet wax jooju muy yell jëm ci man waaw moo tax ma ne faxfir jéggalal waaw li abdin jàmm bi nga xam ni minil asaami xayyaari def na ñaawteef te xamu ko def na ko jéggalal jàmm boo xam ni def na ñaawteef te xamul ni def na ñaawteef moo tax gaa yi li am solo ba am solo mooy nañuy xisab suñu bopp wa xaasibi nafs fi dunia muhaasabatan xabla al qiyaamati tarbax doon xusraani waaw mbokk yi nañuy atte sunu bopp la njëkk yàlla duñu atte mbokk yi nañuy audit suñu bopp lu njëkk yàlla audit mbokk yi nañuy waxtaan ak suñuy njeganaay lu njëkk yàlla duñu atte ku dem ba ca kanamu yàlla zalika yowm al xaq faman sha'i taxis ila rabbihi maaba inna andarnakum azaban qarib yawma yanzul maru ma qadamat yadaahu wa yuqulul kaafiru yaa laytani kuntu turaabu ku dem ba ci kanamam amul yàlla may ma rek ma dellu ñëwaat jàmmale cinq minutes de déedéet waaw moo tax mu ne nagam wax ji ma wax rëy na lool te yelul ci man yow yàlla ma di la ko wax jéggal ma jaam bi nga xam ni amaan danay def ñaawteef te sax yëggul ni def na ñaawteef waaw wax jee ngi noonu nañu delawaat xole ci yàlla manu delawaat lépp ci yàlla mbokk yi yàlla jaam la boo xam ni boo ko jéggaloo mu jéggal la waaw moo tax ba tey wax ja di ba tey ma ngay wax naan rek wa fii kitaabika rabbi innama bi rabbi lil fuqara min duni inkaari waaw mu ne yow yàlla ci sa téere bii lim nga ci sax lim nga ci sarax de waaw ci sa téer bii nekk na ci si biir téer bi fekk kitaay bi ka rabbi innama sadaqat waaw mu ne nekk na si biir téer bi da alquranul karim nga ni sarax ñeel na aji ñàkk gi kon nag yàlla dama ñàkk sarax ma hmm? wa fii kitaabika rabbi innama sadaqaatu rabbi lil fuqara min duuni inkaari waaw nekk na ci si biir téer bi yàlla subhanahu wa taala nga lim ci aji sarax ñeel na aji ñàkk man nag maa ngi nii Mouhamed Cissokho di wax génn maa ngi nii bari la naa ñaawteef lool bari la naay musiba lool bari naay mbonte lool te nag yàlla soxla naa nga sarax ma sarax ma ci lan ci jéggal ma samay ñaawteef def ma aji jub waaw moo tax mu ne inni faqirun wa miskinun wa munkasirun maxtaaja xayraka fi taysiir awtaari waaw mu ne inni naka man kat laa di miskin laa di ko ku toroxlaa di allahu akbar gis nga ñun ñëpp bu ñu delloo ci yàlla ne kaa ñu ngi ñun daal ñoo ngi nii ay faqir lañu ay miskin lañu ñun ñu torox lañu barale nañu teef lool waaye nag maxtaaja xayr gi fi tey si rawtaare man daal yaakaar ba ci kenn ku dul yow yàlla nga jàppandal ma samay mboole mi mbir waaw maxtaaja xayr ka tey si rawtaare man daal maa ngi nii waaw ñaawteef yeeg musiba yeeg xat-xat yeeg yépp ngi ni yow yàlla xam nga lépp dama di faqiir dama di miskin te maa ngi nag ku torox laa yow yàlla ba tax jaam ñi kenn war ca toroxlu ku dul ci kanamu yàlla waaw war ca toroxlu lu dul ci kanamu yàlla waaw ba tax yàlla boo ko tooñee bu di ko jéggulu si péykul ci daraja si péykul ba set wecc nga taxaw ca buntu yàlla nee ko maa ngi waaw maa ngi nii de yow yàlla waaw fa yaazal jalaali wa yaazal jamaali wa yaazal maali alayka tikkaali fukun inda zanni wala tuslimanni wala taxzulanni bi suui fi aali fa anta rajaau wa min na duau wa min ka la ataau fa hëbli suaali wa azka salaatin ala ji silaatin shafiin usaati wa saxbin wa aali bàpp ko ni ko yàlla yow yaay ko màgg ki yaay ko baax ki yaay jéggalaa kon bi yaay nangam yaay nangam maa ngi nii di faqir maa ngi nii di miskin waaye maa ngi nii di ko torox waaye nag yaakaar naa yàlla ci sa mbaax yaakaar naa la ci sa tabe yaakaar naa la ci sa yërëmande ke nekk na yow yàlla nga jàppandal samay mbir ca naan xiirtal ma ci jaamu la moo waxkat ba ni yàlla bu ñu yàqu yàlla ba ñu yàqule yàlla ba ñu yuq yàlla ba ñu fàtte baatu laa ilaha illa allah seydina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ba tey mi ngay waxee yàlla anta waliyu ya fi dunya wa darataha tawaafani musliman fi rëhti abraar yow yàlla anta waliyu ya yaa méngoo samay mbir yow yàlla yaa méngoo samay mbir fi dunya ci àddina wa darataha ak wu jëmb di alaaxir fii ci àddina ak fële ci àllaaxira yow laa fa yaakaar di yaakaaroñ fa kenn ku dul yow yàlla yow yàlla yaa méngool samay mbir fii duniyaa wa darataha waaw yow yaa ko méngool de waaw Cheikh Ibrahim Ndiaye loolu rek la jàngal loolu rek la jàngal ci jaamu yàlla jox ko xàqam jaamu yàlla rek la jàngal waaw ndax moo méngoo sunuy mbir fii ci àddina ak alaaxira ba tax waaja waxoon ne la ولا تركن حبي لدار فناي فتخسر في الدارين دون bul jeng jëm ci àddina ndax boo jengee jëm ci àddina topp mbanneexu àddina topp ci dund nag day def yi fi kuy kuy dund da def fi kuy dund waaye bu nag hmm, ko defee bu ñu jàng jëm ci àddina waaw moo tax mu ni yaakaar ma ko jul yow yàlla ndax anta wala yooya fi duniyaa wa dara taxa yow daal yow yàlla yaa méngoo samay mbir waaw kon nag tawaffani musliman yàlla nag ma rey ci muslim ci jullit fi rëhëte abraari te nag ma booleel nag ma booleel nag ma booleeg gaayu yàlla yi waaw nag ma booleeg gaayu yàlla yi bu ko defee ñu daaneel ci boobale bayit incha allahu taala ba yeneen jamono ñu indi li des ci mbind mi waaw yow yàlla daal ma ngi lay ñaan yàlla nag ma rey ci jullit fi rëxiti abraari yow yàlla yàlla nag ma gaa yu baax ya waaw yàlla yàlla nag ma rey ci jullit waaye yàlla nag ma booleeg gaa yu baax ya yàlla nga boole gaa yi tawa fa ni musliman fi rëxiti abraari hëbli ilaahiya rabbi tawbatan kamulat wastru xataa yaa rabbi ay astaari waaw hëbli moo tax waa wax ni hëbli yàlla nag ma rey hëbli ilaahiya yow yàlla yàlla nag ma jubal nangul ma sama tuub waaw hëbli ilaahiya yàlla nag ma may yow yàlla nangul ma sama tuub jàmmi nag tuub boo koy def yaa ayyuha lazina amanu tuubu ilallahi tawbatan nasuqa booy tuub meleen ni xale mi nga fekk ci ëtt mi sololoo dàll nga teg ci sa tànk bu la laqee na ngay siicoo yuuxu teg teggi ko mu leer la ne doo ko ci tegaat booy tuub melel ni kooka waaw yàlla nag ma nangul sama tuub waaw waaw wastur xataa yaa rabbi ay astaari yow yàlla daal yàlla nag ma sàng ci sa malaanu sutura si ixfir li ummatihi warham bi ummatihi wasturlaha wajburan ha rabbi allahu ixfir li wa warham bi ummatihi wasturlaha wajburan ha rabbi allahu waaw yàlla ñu ko yàlla defal mbokk yi yàlla ñu yàlla jégal suñu ñaawteef yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla ñu yàlla def ay soppay sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam tabarakallahu euh, ñi ngi waaj koor gi incha allahu taala xam naa léegi sekken sekk njaween gi ak njóobeen gi commencé génne feebar sew sawaan yi waaw waaye na ñu ko waaj nag nañ waaj koor gi nañ ñu ngi koy waaj ki yéen fii ci Tektal TV ay waxtaan yu am solo ay invité am solo ay thèmes yu am solo fii ci Tektal TV incha allahu taala ngeen ànd ceeg seen soppe seen xarit dabax si Cissokho ak seen émission dégg diine ak it seen beneen émission bu bees bi ñu waaj bi ñuy xaar incha allahu taala te muy laan waxtaane Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam dina ci amal ak yéen ay invité ya am solo incha allahu taala fii ci Tektal TV tabarakallahu rabbil alamin liñ doon waxtaane lépp lu ci jub ci euh, euh, man mii la euh, ci lépp lu ci jub ca la doon waxtaane la waaye lépp lu ci dëng suñu gàtt xalaat la waaye ñu ñaan yàlla rek mu xiirtal ñu ci boppam waaw na ñaan yàlla mu xiirtal ñu ci boppam te ci dëgg dëgg nag ay jullit waaw ñaan yàlla mu rey ñu ci njullit waaw ñaan yàlla mu rey ñu ci njullit te ñaamit mu sànguñu malaan suturaam si ba ëllëg yowmal qiyaama mu taral ñu teeruñu boole ñokk Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam ànd ak mag ñu baax ña tum-tum tum-tumi dugg biir aljana loolu yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Taaha alayhi salaatu wasalaam dal di jaajëfal ki nekkoon ci régie bi di bàyyi maas sama xuloowaale waaye sama xarit ñaanal ko yàlla defal ko jàmm nuyut it borom kër gi Cheikh Taalif ñaanal ko yàlla yàlla jafal ko jàmm axoolu xawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu